waaw salaamaaleykum donc nag euh, maa ngi félicité le président Macky saw tey jii président wane na ni c'est bon président wane na nit ku njaboot la ku bëgg Sénégal la ku bëgg réewam la parce que réew am na foo xam ne bu fa tolloo yenn décision yi il faut que nga dóor ci table ji jël ko donc nag président ñu ngi koy féliciter di encourager tamit les opposants yi nga xam ne président tàllal na leen loxo ñu ñëw waxtaane réew mi parce que réew du lépp politique la war a doon beneen message bi nga xam ne nag moom laay lancé ñi ma koy lancé mooy les propriétaires de maison mooy ñi nga xam ne ñooy loué kër yi tey jii ku euh, couvre fa dafa am euh, ak euh, nu mu tudd état d'urgence ñu bëri liggéeyuñu homme d'affaires yu bëri ak ñi doon lijjanti ñu bëri tey jii dañu wàññi seen dem dikk toog ndax coronavirus bi nga xam ne moo am ci réew mi bu fi benn propriétaire génn kenn këram il faut que état bi bàyyi xel ci loolu parce que mënuloo tey jii nit ñi liggéeyuñu propriétaire u kër yi kenn ku nekk bëgg bu weer bi deewee nga taxaw bu la nit ki fayal nga génne ko sa kër loolu moom il faut que état bi bàyyi ci xel moom laa ni naa profité ci occasion bi dénoncé ko pour sénégalais yëpp jot ci bu benn propriétaire propriétaire génne kenn këram nañu bàyyi nit ñi ci seen aafiya ñu xeex ak maladie bi ñu jóge fi ñu delluwaat ca la ñu nekkoon wasalaam merci